monte buntu bu jëlee rek yomb balaa nii balaa dara kay so de bon jigolo ko ko yare malu wala jigolo kay malu do yare malu jigoni ko to wa e question bi di mana maka ko hani hade ko to wa ma hani sa do ko ma ni aka ko ko ko pa ni to wa ma ke mburu da dum mburu da loya ko zabe loya ko zabe mburu da dum ma pa ni to wa ma ke wala Cavaillero Amazônia. Toca aí, moço. Olha, bom. Não tem como ele acaba de netar. Barki Seydina Muhammad mala da benn garab. Pour am sam samon. Nekk bi bay.